na ci ñoo xamante ne xamoon naa leen avant mais am na ci ñoo xamante ne ci groupe bi laa leen xamee mais lépp major la parce que moom yàlla dafa def mu nekk bu koo xam ne dafa ma bëgg ma toog un jour xaw ma lan laa dugal sax mooy certificat ñoo dama lay créer groupe fu ma am naa nag yeneen bosam daf ci biir bopp boo xamante ni man daf ma jaaxal parce que c'est la première fois ci mu daw def euh, ci moom la parce que moom moo am initiative bu rafet boobu ni damay créer groupe Coumba bu ndaw dem nag di dem di dem ba lii yëpp ci safar lan moo tax ngeen choisir def ko euh, Malika Plage pourquoi ngeen choisir kii waaw parce que moom mi la dëgg groupe bi dañ ne tim mu ndaw la mais moom groupe am la parce que lim ci nekk ak parce que lim ciy def man mi fekkuma ci moo tax ñu ni buñ ne dañ koy defal ma ne pourquoi pas ñu def ko fi nga xamante ne moom foofu la dëkk. Euh, sa diggante ak Serigne Touba ndax ay lañ euh, ñu ngi sa kër lan si euh, mën na nekk benn solo sa diggante ak Serigne Touba wala boog dina la te dama am cër ci côté Cheikh Ibra du sax jar may toog di détaillé lii ak lii parce que gars yi moom des fois dañuy interpréter les choses loo xamante ne noonu la demee. taalibe Serigne Touba la donc bi ñu créé groupe bi ak léegi amul benn événement bi fi xew lu dul safar gi ñoom ñu ne pourquoi pas donc yeneen événement yi am yëpp incha allah di ngeen leen gis ñu taxaw parce que groupe bi dana nekk benn bloc boo xamante ne après ngeen di comprendre. waaw euh, projet yi lan liggéey bi maa ngi liggéey maa ngi maa ngi impu maa ngi impuissant ak waa Evenpro voilà projet yi nag moom comme Sénégal dafa xaw lii dañ ciy def code bu affaire bi lay boobu ñëpp gisandoo. ci code yi dafa bokk euh, ay wax yoo xam ne dañ koy génne di ko wax yow ci dem six mois de ñu koy di jour ba yëgee noonu laa ko yëgee te sama vie privée la bu ma amoon lu ma ciy wax sax ci kanamu caméra yi laa koy waxee donc voilà. mais kon loolu amul. xaw ma de man yéen est-ce que njëkku leen bëgg a yëg parce man ci ay nelaw la nekk ñu yee ma wax ma loolu donc voilà amul lu ma ci wax. mais kàddu yooyu da nga bëgg a wax kon moo tax ñu wax kàddu yu mel noonu. waaw waaw léegi xam nga yéen site bi ko njëkk dugal je pense war ngeen ko xam. da ngeen di dem ngeen xool si boobu ngeen laaj leen fu ñu ko jëlee parce que man yooyu yëpp man aw ma temps bu sax ñu leen jënd yooyu ma du ma leen di topp parce que je que pour ñu wax ci Khady Ndiaye moo tax yéen ñu leen di fay donc naa leen ko may ñu fay leen parce que yéen a ngi liggéey di sonn temps bi ngeen def ñëw fii joxuma leen dara donc loolu voilà. mais rumeur yi de la famille di jël <laughs> loolu aw ma lu ma ci wax yëguma ko sax nga ne lan loolu bon gis nañ ci si si famille bi bi euh, ñu am après yow non kay déglul damaa bëgg wax ci leer parce que xam nga yéen tamit bu leen neexee lu leen neex ngeen di dugal man waxuma ne am na wala amul dama ne sama vie privée la comprendre nga waxuma leen am na wala amul yéen a xool leen lu leen neex rek ngeen jàpp ko xaalis bi mu ne da nga koy delloo nag. si yéen laa wax léegi. Hmm. mais li ngeen di wax ni yëpp si yéen laa wax léegi. mais quand même li ñu wax ni tey ku moomu daw dafa dugg ci sëy bi ngir première cadeau ngir mu mën a def après ay business am comme yenn xale jigéen ñi ñu koy defee quand même looloo tax mu daal di demandé di wax si tamit. man waxuma sax ay affaire de sëy wala dara mais bi ma yàlla di teral dugguma ci ci ay kenn xamuma boobu maa ngi Saint-Louis yàlla di ma teral ba tey jii nii donc voilà am na yenn wax yoo xamante ne man su ma ko déggee samay proche non seulement duñ ma woo di ma wax dara mais buñ ma woowee rek dañuy toj duñu am lu ñu wax dañuy toj rek di reetaan. yow en tant ci ci je pense que du du sénégalais laa woon man sëykat laa wala du ma sëykat. comprendre que awma lu ma leen di prouver ci sëykat laa wala nii laa mel dafa fekk ni yàlla dafa def ma siiw am na ci yu bëre yoo xamante ni du ma bëgg sax des fois mu génn ci réseau yi te mënoo ci dara mën nga ànd ak sa xarit ngeen sinap nga nekk fii ngeen sinap mu dugal ko mënoo ci dara mais affaire kii sëykat la wala kii du sëykat lu ma ci wax na ku nekk sa bopp première édition laa gis est-ce que nga bàyyi ba terminé wala que gis leen moo ci dugg ah andi suñu waa kër yi xaaral ma bàyyi ma ci loolu man ndar fi ma dëkk kër Serigne Touba la. sunu kër boo taxawee Saint-Louis boo wàccee garage foo laaj ci kër ñu indi la ba ñun ñun liggéeyal Serigne Touba dafa bokk ci bu dul woon waa kër dañ koy ñu ñu mel ñu bari jàpp que ni tay bi ngay dugg ci say kaw loolu moo la ci dugal pour après ñëpp dina coow lan waaw mais attends ñun safar moo lu fi indi wala waaw man moo ma jaaxal vraiment loolu laa bëggoon a laajte léegi mais nee na eh, leen rek bàyyi leen seen caaxaan yi nga nekk ñun eh liggéeyal Serigne Touba dañ leen liggéey parce que bàyyi woo yu sew yi. man man quelques mots à dire par rapport ak événement bi nga xamante ne organisé nañ ko ànd koog sa tur. d'abord dama leen di nuyu di ziar rafetlu aussi seen teewaay fii nii bon kii moom amuma lu may wax ci moom. sama sœur la sama xarit la sama lépp la vraiment parce que c'est pas évident man ak moom bi ñuy xamante xamante ndaw la nii te bëri na artistes yoo xam da nga xamante ak ñoom nga laaj leen seen numéro ñu bañ dama ko laaj sama numéro gis numéro gis sama photo mu yónnee chaque jour bi ma nemmeeku barki Seydina Muhammad bi ma feebaree semaine bi hospitalier lu bëri la ma yónnee ni ma jënd ci ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne daf koy def entre ñun ñaar li tax ma doon ko jàpp mais dafa nekk jigéen bu am sutura loo leen wax yéen ñaar keneen bu ko xam euh, dama toog benn bi mu dugalee sa bi euh, am na daal lu mu dugal ma ne ko pourquoi dama lay créer tim moom da doon reetaan te ma ko waxee loolu après bi ma ñibbee ma toog ma jël sama téléphone ma dugg ma bi mu gisee affaire bi daf ma envoyé ne ma kon yow kafoo affaire yooyu noonu. mais bi mu duggee ci groupe bi te am na groupe yu bari yoo xam dañ koy tijji bi tax ñu tijji ko du fa wax te ñii bi dafa dugg wax ak ñëpp mun naa ne fi ñëpp am numéro te loolu bëri na artiste yu ñu tijji groupe ne dugg ay audio la ñuy def. admin bi di ko dugal ci groupe bi mais moom dafa dugg wàcce boobu dalal ne ni man ku am loo may wax laaj ma dugg fii dalal ñoom wàcce ñoom safar bi bu ma ko waxee mu ne ma da ngeen bëgg a def safar ma ne ko wax mu ne ma loolu lu jëm ci yoonu siraatal mustaqim amul benn problème mais def leen ko ak tey ak dal ngeen sàmm seen bopp li ma gën a neex ci Kumba dafa yeew fajar bu yeewu ñëpp la yee jug leen julli fajar lay yeew day julli fajar soo koy tëddaal def li te loolu bu dee instant yi ni jigéen bi fay def mhm. artiste bëri ñu wàccee tournage dañuy sonn di nelaw après bi ñu créé a bi ñu créé safar bi ñu waxtaan ci ñëpp après ñu ne pourquoi pas ñu def safar mu ànd ci ak ñun yëkkati alalam alal ju bëri du ko fi tudd parce que dafa ma wax ñaan ma bu ci wax ma waatal kon ko ma ko wax alal bu bëri la yëkkati ñii xam nañ li may wax mhm. parce que bu may ànd dem banque dina ci la ñooy ànd ñu yëkkati xaalis bi taal jox ma ni ma defal leen lu doyul ngeen laaj ma mhm. kon tey jii nii loolu mu ne ma li ngeen ko tuddee ci dara loolu yéen la mais lii man dama ko war a def parce que samay rakk ngeen samay doom ngeen kon xam nga la mhm. parce jàpp ma ko ngir peut être bu siiw woon yàlla mën dogal duñ ko xam mais dama koo gis ma bëggal ko sama bopp loolu yàlla moo ko def ci nit moom tamit mu jàppee ma comme rakkam jàppee ma comme doomam comprendre nga lu muy def wax ma lu mu xam yëgal ma donc nit kooku noonu bu la ko yàlla boolee da koy téye ak sa fukki loxo mm. euh, avant may terminé nag damay remercier ñi nga xam ne mooy ñoo nekk ci ginnaaw parce que man kese mënu ma dem certes maay président groupe bi mais man kese mënu ma dem ñoom ñëpp si jàpp sim bi ñëpp a si damay remercier sama yaay ak sama papa ginnaaw yàlla damay remercier Issa Thioy ak jëkkëram Mbaye Seck parce que ñoom lépp lañ jàpp ci safal bi palaasam moo nekk fii ak sama meilleur ami Maman Fall ba Canada amul lu mu def ci safal moom tamit mënu ma leen remercier ñoom ñëpp parce que ñi jàpp ci safal moo bëri mais maa ngi remercier ñëpp bàyyi ma ñëpp yi jàpp ñëpp maa ngi remercier ñëpp yéen tamit maa leen di jàpp